Khalifa Ababacar Sall euh, président de la coalition Taxawu Sénégal euh, maire honoraire euh, de la ville de Dakar vous avez terminé avec la mairie dootoo conquérir maire de Dakar. c'est fini. c'est fini koy bàyyi. on a un excellent maire Barth est un très bon maire un très grand maire et vous avez vu il vient d'être élu président de Métropolis le Métropolis regroupe toutes les capitales du monde. mais yow boo demul boo boo. et et et jamais un Africain ne l'a dirigé Barthélémy Diaz est le premier Africain. président de métropolis mais yow bii mooy sa dernière élection. incha allah. ci 2029 ci li nga wax doo doo doo dem. incha allah bu dee bii pas demoo. incha allah bu dee bii pas euh, aboutirul. incha allah ah. incha allah 2029 kii sa candidat baax na. incha allah incha allah incha allah incha allah yaa ngi dugg ci lu bokkul incha allah.